mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen ziar di li teewlu di rafetlu euh, teewlu ngeen def euh, sunu rajo euh, seen xajo Génération FM 93 point 4 ñu fas yéene ak yéen diir waxtu ci wàllu politique li nga xam nag moo di débat bi ci li nga xam nag moo di mm, donc débat politique bu ñu amal. Euh, bës bu ne euh, ci génération FM 93.4 tey nak ñu wuutu nga xam nag Laurent ñu fas euh, donc andak ak yéen ngir waxtaanee li nga xam nag moo politique fii midi et demi inshallah nga xam ne ci lañuy doré journal bi ak sunu rédaction bi may profito nak di nuyu nga xam nag mooy Doudou Fadia Ba du ñu ngi lay nuyu. di la dal di la ziar di rafetlu sa teewaay ci li nga xam nag moo sunu émission débat politique du jour bi. merci Lamine waa Génération FM di leen sant di leen gërëm. Mhm. di eh, rafetlu seen. do yemal jëkk micro bi tuuti ñu dégg la wala Pabis ma baax na. voilà c'est bon Lamine merci beaucoup maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm si invitation bi ngeen ma def nii opportunité bi ngeen ma jox nii pour ma mun a. opportunité opportunité bi ngeen ma jox nii pour ma mën a waxtaan yéen cadre suñu parti bi muy alliance pour le Sénégal. waaye balaa may tàmbali maa ngi nuyu suñu président muy Alioune Sarr euh, di nuyu tous les militants et militantes de l'alliance pour le Sénégal dans tout le Sénégal mais aussi dans toute la région de Ziguinchor. d'accord Doudou première question mais ma la bëgg poser may fàttali ne gis naa ñu def Pabis <laughs> mu def seen bulletin bi ci ginnaaw sax bulletin que euh, euh, est-ce que dans ta carrière politique imagine woon na vous benn bés di nga de a Ousmane Sonko coalition di ko c'est pour relancer un peu le terme de la versatilité euh, des partis politiques au Sénégal et la banalisation de la transhumance politique. non euh, comme nous nga ko waxee dañuy dégg nous na ñoo xamante ne euh, Alioune mais honnêtement Alioune Sar n'est n'est parce que septembre 2022 le gouvernement Macky Sall opposition la le le 15 le 15 avril 2023 lancé a lancé mouvement le 10 mai 2023 a annoncé sa candidature pour les présidentielles Moudam a déposé candidature euh, malheureusement il a été recalé Il a été recalé mu bokk ci groupe de recalés le collectif de recalés Il sax a mu dirigé collectif bi léegi ci son discours c'était quoi c'était d'abord l'injustice de libérer les détenus politiques

ñu génnee ko ci gouvernement Nous bi mu génnee gouvernement bi moom ñoo ko ne léegi def il n'a plus rien à prouver ñu génnee ko ci gouvernement bi bi c'était quoi il faut il faut il faut il faut une nouvelle alternance pour changer le pays parce que tout simplement Beno Bokk Yaakaar et AFP et APR avaient atteint ses limites. mais est-ce que mon mënul woon ci opposition continuer un peu le combat ni ko Pastef de bëgg au pouvoir ñoom war nañ mën a am taxawaay boobu génn taxaw ci opposition bi góorgóorlu ni ko Ousmane Sonko waxee ci une vidéo C'est une opposition opposé wu de façon responsable ba ñoom tamit Sénégalais yi mais li ñuy def nii dafa mel ni ni ko booy partisan du bon effort la fu neex rek Alioune Sarr nguur rek lay àndal. non non non non parce que mm-hmm. parce que tout simplement mënuloo xeeg nga fal nit ki nga jox la majorité ba pare et eh, na nga bañ ko jox moyen yu mu war parce que boo xeexee pour mu nit ki falu bu faloo da ko war a gunge nga jox ko pour mu mën a amul sens question de bon sens la. Mhm. dañ lay jox possibilité nga def sa portable mode silence euh, kii yodo. Euh, mën nga def sa portable mode silence tant que ñu relancer la benn question euh, damay fàttali ni non <laughs> Pabis da nga may dellu un peu donc voilà Doudou ci kanam mënoo wuy téléphone bi fi parce que dañuy dañuy dañu nekk en direct mais mën nga ko né mu rappeler la wala ñu défal la ko mode euh, euh, silence wala nga wuyul ko nek mu ngi émission Doudou euh, je te relance est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'être cohérent et de rester dans l'opposition ba la conquête du pouvoir donc des années peut-être nañ ko wax té dé bu dee participer ngeen tamit ci ci arrivée de passer au pouvoir nek loo xamné ne fës xamné nit ñi gis nañ ko peut-être voilà nek loo xamné amna am na doole quoi je veux dire. <laughs> am nga ci doole ci réclamer bilan quoi tey. veux nga ah, c'est patriote là. tout le monde le sait c'est un patriote. Mhm. parce que munoo en tant que posture bu avec tout ce qu'il a le pays bi yëpp lu ko jox. ak lu pendant dix ans mais munuloo ñëw retour nga xeexal gouvernement boobu wala nga pays boobu parce que le fait bañ accompagner Ousmane Sonko dans ses ambitions ou dans ses programmes c'est combattre de Sénégal ma le Sénégal bi donc vous optez que vous optez que suba vous passez régime bu est tamit da ngeen di c'est-à-dire que vous bu vous bi rek ngeen non c'est xam Parce vous nañ ko nañ ko 5 ans vous mu il resterait au Sénégal et nous, koy apprécier après parce que ça dépend comme nous le ko Benoît Bokakar avait atteint ses limites il fallait ñu xool pour une nouvelle alternance pour changer l'affaire. mais nous tam tous les leen dans ce sens au bout de 5 ans les Sénégalais vont apprécier selon le résultat que nous avons bu ans lañuy la parce que ñun ne alun sa pour euh, la tête de Ousmane Sonko ou de qui que ce soit pour Sénégal lañ nekkal faire. Alioune Sarr pour Sénégal bu gisee gouvernement bu ñoom yaa ngi doxal doxal bu mucc ayib ah ñu accompagner la bu ñu gisee ni yow da yaa ngi gis ni tu commence à atteindre tes limites mais on sera obligé de s'opposer pour ñu xool benn changement. Mhm. loolu mais Doudou est-ce que tamit la ngeen ñu tontu ñu jàpp ne Alioune Sarr dafa am ay mbóot yu muy yu muy yu traîner mooy les casseroles ni ko gars di waxee surtout ci question foncière bi. ci mm. détournement des questions foncières dañuy faral di ko ci tudd lu bari ñu jàpp nak tay euh, dafa bëgg euh, abriter abrité wu maanaam sauvé boppam moo mu ñëw fekk ci Ousmane Sonko est-ce que lolu tamit euh, nekkul un argument plausible ci bu ñu vraiment alliance contre nature bi nga xam ne gis nañ ko tey te ñoom Alioune Sarr nekkoon ñi gën a fës ci bopp réew mi eh, ci gouvernement Macky Sall yoroon tourisme n'importe quel département jamono yooyu. ok comme je vous dis euh, il a lancé ce mouvement depuis de, depuis 2023 donc ce problème foncier vient de surgir La semaine passée lañ ko kii problème pour rappel pour rappel. ça c'est un problème de tous les les les élus les élus locaux les maires les gens les reprochent comme ça mais pour le cas d'Aloun Sar, Sarr pour rappel il, est le seul ministre qui a été félicité par l'OFNAC à travers sa gestion surtout dans les fonds Covid dans la gestion du fonds Covid. Hum. Ça, j'espère que vous, vous faites. Il y a des éléments qui sont là. Donc, quelqu'un qui a pu plus de 150 mhm. milliards mhm. du fonds de Covid et il n'en a rien touché. Mais alors ça, là, ça, je pense qu'il y a des éléments qui sont là. Mhm. Si aujourd'hui les gens disent que oui, des, faut, des, des, gestions foncières et tout, mais l'OFNAC est là. L'OFNAC, la personne, qui m'y félicité, Sénégal, c'est rare il est le seul moom kese lañ féliciter si ministre yépp jot gérer fonk bi loolu kese mën na doon témoignage. mais mais Doudou lolou fën est du affaire de pëndal rek man parce que man nga nga baal ma li tax ma ci ciy relancé. Mhm. Euh, Alioune Sarr euh, dafa yag ci euh, dafa yag ci gouvernement Macky Sall comme ñu bari daf ci assumer lu bari den doon comptable de ce bilan là aujourd'hui ci lu bari parce que bi Macky di waji wacc wàcc defe deux dernières années la genn xawma un an yi. Mhm. fekk bi Macky di waji genn la bàyyi. nan ngay porter le la vision d'un gouvernement pendant 10 ans nga yor des postes stratégiques c'est des postes clés Il y a beaucoup ga nga taxaw gouvernement vision antagonisme depuis que vous êtes ci est-ce que ça vous ne craignez pas que ñi di parce duñu crédibilité non si parce que connaissant la personne euh, comme je vous l'ai dit Sénégal n'est fini. kenn ku fi pour pour kenn Sénégal lañ fi nekkal Alioune Sarr Sénégal la fi bi ñu gisee mun na liggéey si gouvernement mu gis ni tout au début moom lu ñu ko jox macha allah def na ko lu ko war a lu ko lu ko lu ko ci sant la fa def liggéey bu mucc ayib la fa def yu Sénégalais bi yëpp Sénégalais yëpp apprécié mais ci kaw loolu bu ñu gisee demee à un moment donné ñu gis nii ñëpp xam nañ ni gouvernement Macky Sall fin bi dafa fayir lu bëri bari bëri bëri. ñëpp constaté nañ ko dafa fay lu bëri mais en tant que sénégalais soucieux des problèmes dëkk bi mais quel que soit nga nekk si gouvernement bi yàgg si gouvernement bi boo si yàggee après da ngay décidé wu da ngay ne non lii dëkk bi fu ñu jëm nii baaxul question de responsabilité la loolu moo il a pris ses responsabilités pour l'intérêt de tous les sénégalais et le Sénégal mu ne fii. nañu jàppale nañu xeex pour beneen alternance bi nga xamante ni mun nañ changer réew mi parce que fu ñu jëm nii baaxoo sens boobu la c'est une question de bon sens amul leneen Macky Sall liggéey na ak Macky Sall bien mais à un moment donné gouvernement bi dafa dafa montrer si limites sénégalais bu toog këram demul fenn xam na ko. kon yéen boo leen demee fekk si boo leen demee fekk parti Pastef te donte do waxoo leen ko transhumance mais meun nañ def na jenté da ngeen bok ak Pastef vision alors ci coalition bi da ngeen bok gis-gis. oui dañ bok gis-gis. da ngeen ŋaññoon ko ci ginnaaw. doudou fa ko non non dañu bok gis-gis. parce que l'enjeu est grave situation bi nek fi réew mi par exemple assemblée tey buñ démé assemblée te gouvernement bi amul majorité à l'assemblée mais kan moy diriger réew mi nous avons un mode de fonctionnement Nous ñu ko dérouler. ah gis nañ fi cohabitation relative koul dara xaw a assemblée nationale loolu tamit amul amul problème mën mën ko fi gis ah. assemblée bi proportionnalité des forces moo fa amoon. non non quand même. non non ce n'était pas à à par 100 mais à juste à 1 2 pour décalage quoi je veux dire mais mais mais majorité absolue. la majorité relative majorité relative le gouvernement, est nguur yi mais taxul gouvernement, nañ quand même. Mais à l'Assemblée, quand il y a une majorité, quand il y a une majorité relative ou absolue, tu, es majoritaire. Tout ce que tu amènes là-bas, tu peux dérouler tes projets. Tout ce que tu amènes comme projet, ça passe. Mais au cas contraire, tu es, bloqué. Donc, est bloqué. Motahit, il est important, euh, Saad, qui est le leader, de dañu war a jox gars pour une am majorité à l'Assemblée

bi ma ñëwee jot naa euh, rencontre ay responsable euh, communiquer ay exemplaires yu bëri parce que période bi moo ko laaj noonu amul temps vous savez que eh, Ousmane Sonko dëmb la fi ñëw gaa amuñu jot mais quand même discuté naa d'ailleurs fi ma dëkk le responsable il s'appelle monsieur Diouf de la section de Bukot dëmb waxtaan naa ak moom lépp ba tey activité bu ñu war a dérouler ça moom sax il est il sera parti en tout cas il est de tout cœur avec nous dafa woo ñi ñoom nitoom yi yëpp si koñ bi ne leen Doudou Faye ba ñëw na allié la na ko xejal la main dans la main ñu liggéey pour l'intérêt de tout Sénégal. mais lan ngeen di xaar bu élection yi jàll ñu jox leen seen wàll wala bu législative yi ñu ne Alioune Sarr ñëw jàppale na gars yi donc comme que liggéey na participer si li nga xam nag moo di euh, victoire bi kon normalement lañ ko jox wàllam ci nguur gi mooy maanaam partage du vous n'avez pas soutenu pour, pour croiser les bras après quand même. Non, non, dañuy dañuy jàpp dañuy xex pour l'intérêt général comme ni ma la pour am majorité assemblée lolu moy suñu ki après le reste là c'est pas important lu am importance tay moy nañu xex jàppale nguur gi pour ñu am majorité à l'assemblée. Hmm. pour l'intérêt de tout le Sénégalais et le Sénégal heure bi ni lolu moy sunu sunu sunu sunu sunu yitte.

Euh, des violences dafay jóg moom ñi nga xamne ne jël nañ ci ay gañu gañu yu métti ñuy taal ay ay bien euh yéen euh, bok ci coalition Pastef d'abord kan ngeen di porter kan ngeen di incriminer ci responsabilité bi et pour yéen kan moy indi violence bi ci campagne bi. non violence même si à l'avance xam naa un sa réponse mais bëgg na am l'évidence quand même <laughs> Doudou Fadjaba la ñuy dalal tey alliance pour le Sénégal waaw. bon ça, la violence, moi, politique, non, non, violence, politique, violence la ànd. mais y a génnee note avec le ministre de l'intérieur ne bu circuler armes arme ñu gis gars yi arme blanche te image c'est des éléments de Pastef est-ce que c'est vrai. arme blanche non ça je ne peux pas confirmer ça peux pas confirmer parce que d'abord ça man suivre ma suivi maa quoi le ni yow ni mhm. suivre ma mais politiquement violence la àndal kenn mënu ko si génne ñun bu nekké xalé xale Abdoulaye Wade bu fi doon xé il faut casser la baraque lañ doon donc boobu mo continuer ñëw Ousmane Sonko ñëw Pire ñëw ainsi de suite donc euh, c'est comme ça politique moom violence la ànd kenn mënu ko ci gënné mais moi je ne suis pas pour la violence honnêtement politique je ne bugguma bugguma violence politique. Mmh. man dal nañ tenir débat débat d'idées yi ñu waxtaan suñu biir waaw idée mënuñu bokk di mën nañ am différent différent en tout cas. Euh, position position mais nañ ko def ci débat d'idée. Mhm. waaw noo gisee campagne bi yéen d'abord euh, parlons d'abord de l'arrivée de Sonko hier à Ziguinchor wax na ni moom euh, feneen fii 70 pour cent la bëgg wala mais Séné Ziguinchor laa bëgg ñu jox ko 80 mhm. euh, pour cent est-ce que loolu c'est un c'est un c'est une ambition réaliste mën a nekk la non si si ça. ah oui c'est ça c'est donc mooy coalition il y a une quarante coalition il y jël vingt pour cent Wow, c'est clair. Hmm. c'est clair c'est une confirmation ça ça c'est confirmé parce que comme vous le savez. que vous non si ça va se confirmer parce que boo xoolee boo euh, déjà on on quand la même année on vient de terminer les élections présidentielles la même année comme je te l'ai dit les Sénégalais ont compris. mënuloo fal nit ki mënuloo fal nit ki en 2024 bi nii. nga xañ ko assemblée bi. nga xañ ko assemblée bi en 2024 nga xañ ko ce n'est pas possible. Sénégalais dañuy xalaat léegi Sénégal dañuy toog seen kër demuñu politique dawuñu demuñu mais ñu ngi toog seen kër mais am nañ seen xel ñoom ñoo vote jox majorité gouvernement duñ leen seetaan tous les moyens ñu mën a jël pour gunge leen nañ ko def. moo tax dëmb man dama doon jom quand j'ai vu le monde là dama ne waa le Sénégalais maintenant ont compris mënoon na kenn moo kenn mënu ci dara Sénégalais dañuy gunge gouvernement bi ñu mun a réaliser seen projet yu ñu wax yu ñu waxoon Sénégalais pour ñu mun réaliser Sénégalais dinañ leen jox tous les moyens pour ñu réaliser ko loolu moom kenn mënu amul leneen. Hum. waaw. Mais, mais euh, quand même que dans, la, dans, dans, la, dans cette campagne, il y a d'autres listes sérieuses qui existent quand même. dans ngay y a la liste de euh, sa kàddu boo xam ne moom la Diaz jiite ak ñi PDS ak PDS ou ak le camp de le camp qui restait fidèle à Macky Sall am liste boham xam ne Amadou Ba moo ko jiite euh, nekk euh, jàmm ak njëriñ te ñu ne mekku ñeneen ñu ñu bare bëri ak liste bi nga donc euh, moom mooy euh, donc euh, am liste kam bi c'est des listes non négligeables est-ce que au niveau de passé, vous les regardez comme des adversaires peu capables moi, tax ngeen assurance bi non on ne va pas dormir sur nos lauriers. Fi, kenn mun amul tête de sa laurier nan du minimiser ken du minimiser en politique vous minimiser sa adversaire Vous minimiser sa adversaire mais bu am rassurance. C'est parce que l'homme une cohérence bi cohérence parce que a na benn cohérence Les affaires sénégalais affaire sénégalais Les sénégalais les les nangou sénégalais ñoom ñooy jox bi eh, gouvernement Ousmane Sonko sénégalais dañ leen tous les moyens ñu permettre pour Sénégal lolu sénégalais ñom ñokoy assurance maintenant minimiser parce que politique la dañuy def dañuy dañuy dañuy dañuy def dañuy dañuy militant dañuy campagne mais li ma wax ni mo am sénégalais dañuy joxe lolu assurance ñom tous les moyens yu leen pour ñu Sénégal parce que c'est lolu sens comme ni nga ko waxee mënoo fal nit ki léegi lu ko war a mu nga waxtaan ak moom lu lu war a tax mu liggéey liggéey bi joxoo ko loolu c'est comme si nga ne nit ki nga ne sa bon bi defaral ma ceeb ba pare nga jël sa mbar marmite yëpp dugal ko si tëj ko si biir lu muy defaree nu ma nu ma lu mu tudd sa métaphore culinaire bi sori nag réalité bi de. ah si non non non c'est ça. <laughs> Hmm. mais mais est-ce que aussi euh, même même étant membre de Pastef quand même euh, l'Assemblée nationale euh, euh, dafa di disons institution qui ont fait dafa am solo trop dans la régulation des pouvoirs est-ce que euh, pour contrer un peu le pouvoir exécutif xaw ko wagné doole bi parce que le président de la République xamnañ nañ doole bi am Sénégal est-ce qu'aujourd'hui, la la majorité on va dire super absolue bi ko joxoon Pastef on ne va pas retourner un peu au schéma du président Macky Sall auparavant nga président Macky Sall un super pouvoir am yor assemblée bi di doxal di di di di parce que assemblée nationale l'assemblée nationale lui était accuse euh, très très largement est-ce que nous retomber dans le même piège avec PASTEF Non, je pense que les, idéologies diffèrent. C'est ça, c'est là où se, trouve le, débat. les idéologies diffèrent. Euh, gouvernement passé benn Bokk Yaakaar ak ñii lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu jaay sénégalais yi bokkut mm-hmm. waaw ñii lu ñu jaay sénégalais yi ak ñeneen lu ñu doon doxal moo bokkut moo tax boo xoolee popularité ñii sax dafa bokkut ak bu benn Bokk Yaakaar waaw loolu foofu la kii nag parce que ñii dañu ne changement Ousmane Sonko bu muy taxaw bu muy taxaw assemblée di xeex lepp lu mu doon wax mi ngi fii sénégalais yi ñu ngi yor ba tey donc je pense pas que moom dina mën a ñu dugg ci piège boobu wala même la même chose def même chose bu ñëlee doon def loolu xalaatuma ko parce que vidéo yaa ngi fi lépp a ngi fi moom moo xeex loolu assemblée xeex loolu assemblée je pense que moo tax sénégalais dañ ko war a jox majorité bi à l'assemblée parce que conviction la gars yi Sénégalais dañoo dañoo dañoo dañoo ils sont sénégalais dañoo convaincre ni kii nii bu ñu ko joxee majorité assemblée lépp lu mu doon wax fi assemblée dina ko saafara bi ci commencé man ni saa yu ma toogee déglu ay vidéo am ci assemblée damay gën a rassuré c'est comme tous les sénégalais ñu ngi rassuré wu moo tax élection yi dañu war a def lépp jox ko majorité à l'assemblée ñu xool d'ici les 5 ans ñu def en tout cas amna assurance. Mhm. changement bi ngeen di wax y a koy tudd mais gis nañ ne euh, euh, gaa ngi tudd euh, peut-être des des des des présumés scandales ci yenn gestion yi a azer yenn ni dem gis nañu interpellation bi nga xam ne forum civil def na ko donc ministre de l'assainissement et de l'hydraulique Ousmane Sonko taxaw na fi ne gis na gis nañu mille milliards ci benn ci benn compte bancaire mhm. est-ce que sur le plan la reddition des comptes amoo tam li ngeen reproché euh, yéen a ngi yéen a ngi tudd ñenn ñi mais yéen tamit bi ngeen bi bi Pastef toogee yàggul mais quand même teewul ne presse bi de temps en temps moo kenn des des des scandales présumés dans la gestion de. de Pastef. oui ça ça présumé bien sûr. waaw waaw mun na bañ a manqué. Ah. xam nga mënuloo ne affaire bi à 100 pour cent la mais président Bassirou Diomaye bet def na benn sortie fii ñëpp de nañ ko mu ne képp ku fi détourné wala képp ku fi luubal xaalis sénégalais. na nga jël sa responsabilité ba mat sëg kenn du la si gunge comme yeneen ni ñu doon def Macky Sall ñii dañ doon jël di sàcc ñëpp di ko wax of nag di ko wax defu ci dara topp si kenn Bassirou Diomaye wax na fi Sénégalais yëpp man loolu dugguma si suñ gouvernement bi ku fi luubalu ku fi sàcc na nga jël sa responsabilité boobu mag kenn du dee amul amul kii amul solidarité leneen boo ko defee sa bopp la dañ lay poursuivre comme lu ñuy poursuivre ñëpp amul lor ku fi jël na nga jël sa responsabilité yagul ni bar ci Diomaye wax na donc boobu je pense que discours yoyu c'est des discours rassurants kep ku ko def mënuloo bañ a empêcher ñen yi def mais kep ku ko def na nga jël sa responsabilité bo mag contrairement aux autres Macky Sall gouvernement c'était du n'importe quoi gars dañ dañu doon jël du doon poursuivre kenn au contraire muy protéger. ci gouvernement boobu ngeen bokkoon de. <laughs> ma ci gouvernement boobu ngeen bokk. waaw mais ñun on a ñun ñu yoon dara bokkuñu yoon si ñu doon jël et eh, bu bu décision yoruñu yoon décision yoruñu yoon décision xam nga boo boo dul président boo dul premier ministre xam na benn décision. ministre Kessane. mais yéen ngi woote changement leeral ni koy waxee jub jubal euh, jubanti di woote transparence di woote reddition des comptes mais yéen. gaa ngi leen xaar ba léegi ci ay publication de de de déclaration de patrimoine ñu ngi naan Sonko ba léegi déclaration patrimoine maanaam defu ko lu tax te ngeen ngeen ngeen ni da ngeen bëgg a jubal affaire yëpp leex est-ce que loolu c'est un un argument que les Sénégalais peuvent entendre. waaw mais si bien sûr parce que déclaration de patrimoine xam nga parfois euh, moi je pense que Ousmane Sonko a d'autres beaucoup d'autres choses à fouiller. ah loolu c'est vital ah. oui mais loolu c'est vital euh, mooy li ñuy wax euh, la pédagogie par exemple. voilà voilà c'est-à-dire on te donne il a il y a il y a des priorités dans ce pays pour moi, euh, la, déclaration de patrimoine, ce n'est pas trop, trop important pour moi. lu qui am solo Sénégal nous lu am solo Ousmane question pour apporter solution pour Sénégal parce que nous sommes sénégalais c'est priorité. Ousmane Sonko il est super chargé pour et là j'apprécie son comportement parce que quand la déclinaison des urgences quoi. voilà hmm. c'est ça. mais il y les les priorités sociaux. gars bi na. Euh, da ngay ñu woyofal bi concert bi ngay ngi <laughs> euh, euh, la vie le coût de la vie est extrêmement élevé la cherté des, factures également, de façon globale. Mais il semble qu'il y yen, une promettront que si vous arrivez au pouvoir, vous allez les denrées de forte consommation, réduire le coût de la vie. Mais a beaucoup de Sénégalais tirent le diable euh, par la queue. Priorité, lolo, apparemment... Euh,

il faut nga top bo ñoy gouvernement C'est vrai que amna ñi ne oui ñi dañu ne dañuy changer si effectivement dañuy changer bo xolé même Abdoulaye Wade bu mu parce que deuxième mandat la deuxième mandat bi la commencé liggé changer Macky Sall également bu mu ñëwee premier mandat pratiquement deful tara dafa doon jégali projet yi dafa doon installé wu dafa doon organisé wu dafa doon dugg di uti di parce que Ousmane Sonko gouvernement bi position boobu lañ toll ni C'est vrai que les ça a trouvé les Sénégalais sont tellement pressés non mënul demee noonu nañu patient ñii conviction bu ñu am ambition bu ñu am pour réew mi moi je suis convaincu que bu ñu leen mayee tuuti temps da nga gis changement bu réew si réew mi même ay ay ay denrées de première nécessité yëpp après dañuy ñëw wàññi. ngaa yéen ngeen di gaay xaar 2050 pour ngeen def loolu nu ñu koy waxee sax projet <laughs> Sénégal 2050. Euh, non 2050 yooyu opposition bi moo koy jàppee mooy mooy di mooy di wax la ne ngeen di xaar 2050 pour ngeen changer Sénégal. non dina sori de. yooyaay wax la yooyaay wax la mais lu wóor ba wóor moom gars yi ñu ngi ci liggéey di liggéey liggéey ci liggéey bu mucc ayib heure bi nii pour mun a apporter mun a soulager. mais mais yan preuve ngay am yooyu noonu pour parce que gars yi quand même ay preuve palpable la ñor yor boo nee gaa ngi si ay liggéey mucc ayib parce que gars yi bëgg nañ xam fan la liggéey bi toll. le le le le li li peuple di xaar mooy les résultats palpables visibles yooyu le peuple di xaar pas des promesses. non si comme je vous le dis ñu ngi liggéey en tout cas yaa ngi le président Bassir Diomaye ñu ngi commencé nañu ñu ne ma ñu ne ma chaque semaine il voyage chaque semaine mais il va voyager aller trouver des partenaires discuter avec des gens pour a mi situation sénégalaise def Ousmane Sonko yi yi ko jot téléphone ko gis ko jot téléphone parce que si lu mu nekk la c'est pas facile il faut mu nekk si loo Sénégal moo nekk si boppam Sénégal moo nekk si boppam ki lañ nekk nii nañ leen temps mënoonoo leen fii la nekk fii la nekk mais nañ leen may le temps ñu ñoom ñu ci liggéey bi. may bi ba kañ la. Hmm? may bi ba kañ la. non échéance bi lu yàgg quand même parce que y a des urgences sociales yi gars yi wax. c'est pour ça que les gens ont sorti le régime de Macky. defaguñu at si pays bi defaguñu at donc comme ni ma la ko waxee benn at defaru réew benn mandat sa wax ma la benn at benn mandat defaru réew changé wul réew waxatuma la weer donc nous, defaguñu at dañ leen may un an deux ans trois ans peut-être d'ici au bout des cinq ans avant les cinq ans là vous verrez qu'il y aura beaucoup de changements. C'est uh-huh. ce de conviction la ci man. ñu ci aspect lié à la réforme de la justice et les euh, et les euh, et les, et les libertés publiques euh, gis nañu ay pratiques qui xam ne mu ngi continuer Une ñu fi est euh, au temps de Macky Sall mm-hmm. mais daf mel ni euh, affaire mu ngi continuer des opposants qu'on emprisonne des chroniqueurs qu'on arrête tous les constamment euh, D'après euh, Pastef est un peu vulnérable aux critiques nous tellement euh, que les gens critiquent un peu leur façon de faire est-ce que maintenant aujourd'hui c'est un parti vraiment ancré qui a des valeurs démocratiques dans la perception de la différence du point de vue de l'autre techniquement parlant non c'est les Sénégalais qui n'ont pas compris mais l'état mon fi les mais c'est l'état qui réagit c'est l'état qui est là c'est la justice qui est là nous sommes c'est la même chose c'est la même chose qui se passe même chose pour moo qui interpellé cadré la wala ñu. di ngeen japp commence na bari de chaque jour ngeen ko mun japp c'est l'état toujours comme ni ma la ko waxee rek. ñii oui mais y a des gens qui incarnent l'état Il y a des gens qui incarnent l'état euh, Doudou Fadiaba am na ñoo c'est eux qui incarnent l'état qui sont à tête de l'état tey lépp li nga xam régime Macky Sall def na ko fi. parce que li nga xam régime Macky Sall def na fi yéen a ngi naan le, premier responsable, c'est Macky Sall parce que Momo Diotion Gourgui et c'est lui qui incarnait oui. l'État. Donc aujourd'hui, le plus fier, c'est Basile Diomaye Faye qui va l'incarner, Macky Ousmane Sonko, parce que c'est eux qui incarnent l'État. C'est la masse moins xalaat non. mais en réalité l'état est fi Il amul leneen l'État defee naka su dul noonu lay interpellé. mais est ce que ñu ngi def naka est ce que rek est ce que ñu ngi def est ce que parce que quand même l'interpellation de Bougane Gueye à à Kunda, est ce que c'était approprié parce que sont finalement sax euh, justice bi euh, le juge n'a pas accepté de suivre un peu le, procureur ci ci lim mu bëggoon mooy que ne jël euh, Bougane Gueye tek teg ko ñetti weer té xam nañ procureur son patron c'est le ministre de la justice le ministre de la justice son patron c'est le premier ministre et lui son patron c'est le président de la république réforme justice bi ngeen doon wax donc li gars wax lolu li le procureur di def wala li procureur def gars yi mën mën mën nañ ci and donc interpellation Bougane bi à Tambacounda est-ce que Doudou Fadja Ba objectivement parlant yow gis nga ni rupture amna entre ce qui se faisait jamono Macky Sall et aujourd'hui s'il y a rupture où est la rupture. non si parce que. parce que persécution bu Ousmane Sonko doon vivre. gars y koy d'autres acteurs politiques sont en train de vivre ça aujourd'hui comme le cas comme Bougane c'est comme je vous le dis l'état état mo fi Ousmane quand il se rebelle il poussait fi nga xamanteni war ko la masse masse mun na xalaat mais bimu mu bu mu pousser ay barrières mais dañ ko interpeller parce que état moo ko ne loolu du deug du l'autre euh, kii tamit même chose la def dañ ko ne président mo fi ne xaaral ba mu ki mu ne non non par force day dem. c'est parce que un adversaire politique gênant aussi euh, dans, même dans la peut-être dans la communication. Ouais, c'est quelqu'un qui tire beaucoup sur le régime donc il fallait. Euh, nous mu tudd napp ko wala xoxotal ko pour mu xaw delu dellu certainement stratégie passive la quoi. c'est la masse qui pense comme ça mais en réalité amul lool en réalité non en réalité deug moy lan mooy Sénégal c'est un net c' état mo fi nekk état bi nga xamanteni ni macha allah man maa ngi soog comprendre ni Sénégal am nañ état. duut nak bu doon bañ ne instant yii nii yéen a ngi yéen a ngi si Macky Sall ci affaire gestion liberté publique parce que gis nañ li fi xew demb am nañ ñoo xam ne refusé faire le rapprochement mais gis nañ li xewoon Koungheul kero bi bi coow li euh ba ñu attaqué le convoi de Sonko moom ay blessé. demb lañ dàqalu commissaire yi. loolu loolu loolu nu ngeen mën expliquer loolu jël commissaire yi relevé leen parce que tout simplement le convoi du du premier ministre dañ ko dañ ko attaqué te ngeen ne nekkoo leen dans la méthode de de de de de méthode Macky Sall nekkoon est-ce que mën ngeen prouver loolu. Euh, loolu le téléphone bi nga xam ñun <laughs> est-ce que mën nga ñu prouver loolu. Hmm. sama question ma reprendre ko. maa ngi naan mu est-ce que tey mën ngeen weddi ne yéen a ngi dans toujours dans la dans la même dynamique que l'ancien régime parce que mhm. gis nañ li xew Koungheul keroog ñu attaqué le le convoi du premier ministre le, lendemain ou ce lendemain on relève les deux commissaires on les affecte à Dakar comme genre frigo ngeen ne pas en train de suivre le le pas sur le même chemin. c'est difficile à croire. nous non même les commissaires même les commissaires parfois ils peuvent faillir dans l'état ku faire si état noo mënta donne commissaire nga gendarme nga euh, lan même gouverneur dañ lay dañ lay dañ la léegi ana commissaire bi nga xam yor la zone euh, d'administration du siège de Taxawu parce que boobu saccage nañ ko te commissaire boobu gaa ngi naan lu tax laaluñ ko parce que moom c' pas les gars de Pasteur qui sont attaqués là-bas donc deux poids deux mesures bi mu ngi feeñ ah non Lamine. ah bu ñu commissaire yi tax ñu attaqué la le convoi de Sonko. loolu dañuy san sanctionné le commissaire bi tax bi mu empêché du siège de Taxawu à Dakar non non est-ce que démocratie le nek hein voilà deux poids deux mesures bi fës na. non est-ce que le gars euh, parce que si le le gars qui a été sanctionné qui été sanctionné est-ce que amul lum mu si lu mu est-ce que amul lum ci si parce que il amé bu amé lum ci si mais dañ lay destituer wala pousser pour la bonne marche de l'État pour que l'État avance toujours loolu la kenn du État État mom mu ngi bi gisee di diw nii la dina la dina la dina la rappeler à l'ordre dina la rappeler à l'ordre maintenant la masse moom ñun mun nañ xalaat lu ne lu ne mais man li ma gëm li ma gëm Sénégal mooy am nañ état quel que soit gouvernement bi ñëw quel que soit nit bu ñëw état nekku fi pour kenn état mi ngi fi pour Sénégal et les Sénégalais man loolu laa léegi euh, jàpp ngeen ni kon euh, vous êtes sur la la maintenant on revenir un peu ci ci gestion li nga xam nak modi di euh, gestion euh mi de façon de façon globale est-ce que euh ci ci rythme bi ngeen di biñu démé ni euh Sénégal est-ce que am ngeen ay ay prédictions yu positives compte tenu du fait que ñi ngi naan. Sénégal dafa nek euh, actuellement en en difficulté économique gis nañ fi premier ministre wax mom sama ko wax institution international, internationale xaw ko dëggal tuuti FMI ak yooyu mais est-ce que lolu c'est rassurant que aujourd'hui ñu nek ci ci ci pente bi la pente économique du pays surtout. comme nous le waxé euh ñu ngi ci pente mais ça va ça va revenir gars nañ ci xeex dinañ ci ñu ci travail en tout cas man gouvernement bi honnêtement motax euh, ñu ngi xeex pour jox leen majorité à l'assemblée pour ñu mëna dérouler seen programme parce que man am naa conviction nit ñi yooyu yooyu yëpp euh, dañ koy surmonter. Mhm. problème la bi nga xamante ne mi ngi fii mais ñu ci liggéey pour surmonter ko. Mhm. c'est peut-être nit ñi heure bi nii c'est difficile nit yi dinañ si wax lu ne mais man dama am conviction ni ñoom ñu ci liggéey et mhm. ils vont s'en sortir. très bien Doudou excellent presque au terme de l'émission <laughs> ñoo xawoon tout si démarrage bi. Donc Ben Lebaïng euh, lançait un appel à tes militants et sympathisants et du parti de l'Alliance pour le Sénégal, parti de Alun Sar, ancien ministre du Tourisme, qui est Macky Sall. Voilà. Euh, président du parti Alliance pour le Sénégal. Je -hmm. Euh, encore une fois, di féliciter. ci courage si responsabilité. Je veux <laughs> féliciter Bouba baax a mhm. encourager si responsabilité du mu parce que c'est comme li ma la c'est une question de responsabilité. d'accord merci Doudou. merci jërëjëf suba ñu dalal incha 10 et demi benen invité bu yalla euh ci li nga xam nak moo débat du jour di len jaajëfal bu bax a baax beneen yoon Ibrahima Ndiaye na fi ñew bu 17 h joté pour le débat du jour ya ngeen jëf.